ñëpp a ngi lay wut yow mi di bamba ku la amul xam ku la gëmul xam yow yaa di mus xam yow mi di bamba yaa yanu yam te gëm yeneen ba doo sànni sam ba yow mi di bamba ñëpp a ngi sant dëkkee di sant cant gi sant mi di bamba jërëjëfeeti ma wax feeti fi nga maneeti mi di bamba amoo moroom tey billahi duy jay ñépp ka gis tey yow mi di bamba yaa di ka lal géej gi yaa sell yaa wóor di bamba faral te jéggal ñi di sikkal seen xel ya guddul yow mii di bàmba képp ku tuubul ñëw fii nga jéggal buy dee di sàbbaal yow mii di bàmba yow yaa di kenn yaa jëfe sunna te xam addina yow mii di bàmba lu mat a wax yow wax nga ko daal yow yaa sax ceew yiw yow mii di bàmba lu mat a wax yow wax nga ko daal yow yaa sax ceew yiw yow mii di bàmba sant di sant lañ di sant dëkkee di sant yow mii di bàmba jëlal su nii mbir tàbbal sa biir mbir saxal ci diñ aar yow mi di bamba taalibe yépp seen jëmmu lépp jox nañ la lépp yow mii di bamba balaa yi yépp ànd ci lépp yow man nga lépp yow mi di bamba fuñ man di nekk sa baax gi rekk moo yem ci rekk yow mi di bamba fuñ man di nekk sa baax gi rek moo yem ci nun rek yow mi di bamba sopp xasiida fonk xasiida te say xasiida yow mi di bamba sama xasiida moom laa di sakku nga may ma barke yow mi di bamba abdullah hat la ku sopp lool la ku bëgg lool la yow mi di bamba abdul ahad la ku sopp lool ku bëgg lool la yow mi di bamba di ñaan ma sax farka da ngir sàkku laa ci yow mi di bamba man maa ngi daaneel te dëkke tàllal te di la tuubal yow di bamba jërëjëfeeti jërëjëfeeti jërëjëfeeti yow mii di Bamba jërëjëfeeti jërëjëfeeti jërëjëfeeti yow mii di Bamba subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin